Obrigado.

ma ko tef loo def. may leen ko mu gaaw may leen ko nataalkat yi may leen ñëw rek. ngeen nataal. nataal leen na gis kii ñu nga. maama ngi ma téye la dana I don't like how that. Oh. No, no, you talk, you talk. Thank you.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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يلا جفا يلا بولي جنجب بقنا تسن باخ بلا ñuy tambali dara ci walu ñu jàng lenn ci ay aaya alquran ubbee ko jotaay bi ñaan yàlla barkel ko tey dinañ jox suñ doom suñ doom joo xam ne fukki at ci gannaaw wala juróom ñetti at ci gannaaw ci la fi jàngoon alquran dellu si wut bareen yàlla may na ko mu dellu si muy imam xasan jóge amerika mu ngi nii toog amee daara alquran boobu di jàngale gannaaw bu mu fa mokkalee alquran ci Pakistani School of Memorization si bala jàng alquran ba mokkal ko ñu defal ko fa feet ubbi ay daara di jàngale yàlla di ko may muy mokkalal doomi julli di alquran yal ko yàlla dafal jàpp ko gudd fan ak wér moom jox mu ubbi jotaay bi ak alquran bismillah ala barakatillah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 سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها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 سماء وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يقروا لم يقروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وذرياتنا قرة أولئك يجزون الغرفة بما فرروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء حسابا صدق الله العظيم امين يا رب الله اكبر الله اكبر من عندك سخنة زينب خديجة من عندك سخنة خديجة خديجة الله يلا بارك زين امين يا رب بس الطيبين اللي نفتلكوا سن باي شيخ محمد الحافظ ليغا خامني موي وون خليفه كيرغي نياري وير سي غناو سي لاكو يالا موم سن باجان سيدة عائشة فاي مومي تام نيانتي وير غناو لول ولا جيرومي وير نديك لول سي لاكو يالا موم مومي تام ñoom ñaar di doomi cheikh omar faye ñu ngi leen di ñaanal ñoom ak seen i mag ak seen i rakk yal na leen yàlla labal ci yërmande yàlla bu baax moomu moo ñu baaxee tey ñoom seen rakk di Cheikh Mouhamadul Fatihi Faye nga xam ne tey mooy xalifa kër gi dëgg la Sénégal la toog yaayam ak yaaye El Hadj Abdoulaye Niass di papa As taawi Baye Niass ñoo bokk ndey ak baay yaayam ak yaaye papa As xalifa El Hadj Abdoulaye Niass doomi Cheikh Ibrahim Niass seen ñaari yaay yee bokk ndey ak baay Cheikh Omar Faye moo jëloon yaayam mu am ko ci moom mii ndekete woo bés bii moo taxoon loola am te yàlla def na ko alhamdulilahi rabbil alamin mu ngi nii toog cheikhul mohamadul fatixi tey moom la ñuy jox mu ubbil ñu ak ñaan su paree sànni tuuti ay kàddu ñu soog a continuer incha allah bismillah 사람의 ñooki nekk nii te ñu ngi commencé di leen nuyu yéen ñëpp commencé ko ci délégation bi nga xam ne moom la président bi yónnee fii boole toog xarit imam bi excellence ambassadeur di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp bàyyiwuñu kenn benn moom dinaa ko wax ñun yàlla ku ñu bëgg la buñ toogee bay sant borom bi ba pare toog fii ci defaraat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo ñuy wan ni ñu jëm ñuy jëm kanam rek waaye duñu ñi nga xam ne nag mu ngi toog fii tey maa leen di ñaan yéen képp ko ci nekk ñu ñu ñaanal suñuy waajur yi dem buñ bàyyi kenn ci li ko réew yi réew mi fi nekkul jot ñu ñaanal leen alaaji Cheikh Omar Faye dafa amoon ay xarit dafa amoon ay àndandoo dafa amoon ay morom ñooñu ñëpp nag ñaanal leen moom ñu war suñu kilifa yi dem dañ leen war di ñaanal suñ leen xalaatee daj leen nañ leen ñaanal ñaan lu da ngay noonu moo jubbee rek ma ñaan déedéet boo toogee ba xalaat nit ki sax war nga koo sànni ay déplacé war nga ko koo sànni lu mu tuuti tuuti parce que dañ koo soxla jullit dafa war di ñaanal moromu jullitam rawatina nag ak kilifa ci ko boo fa amul amoo dara bokkoo ñun ñi lay gis ñun ñëpp dañoo am kilifa moo tax ñu toog fii tey lii suñ kilifa yi ñoo ko naan def moo tax tey jii ñu ñëw ci ko dañ leen déggal topp seen i tànk te bu leen dellu gannaaw bu leen yokk ñu leen di gërëm ñun ñëpp te di wax ne yàlla seen soxla yi dina ko faj incha allah borom bi moo man moo xam mooy borom lépp moom moom lépp dina faj soxla te maa ngi leen di ñaan leen itam ngeen di jàppale imaam bu baax sama doom la man nekkuma maa nga Sénégal maa nga nekk ba Dakar waaye amul lu xew ci kër gi te du ma woo wax ak man lépp lu xew rek dégg mu sàgganu ma eh Modou wala eh Fadi déedéet papa wala daal loolu rek laay dégg ci mosuma dégg benn baat boo xam ne muy rakam ji bopp dañ maa jox kër dama kontaan ñu yeneen xale yi fi nekk ñoom Issa ñëpp xale yu bëri ñëpp ñu ci sama sët def nañ ma maam ñu ciy sama doom def nañ ma baay kon nag aw ma dara lu ma war a wax sama xol sedd na ci ñoom leen ñaanal ñu gudd fan mais raw ñu ñuñ sax di ay sax suñuy mag yi fi jógee nag sama ma yooyu ay xaafis ay Aïcha lenn leen yàlla yóbbu ci àjjana ak ndaw yóbbu ba gëpp jullit nag ñu ñoom rek ma ko ca suñuy maam yaag yëpp yàlla leen yàlla yóbbu ca àjjana bi da buñ buñ bàyyi kenn ñun ñëpp benn lañ fayal doomu Cheikh Faye yi moomuñ ko def sëtam yi moomuñ ko def fayal ñëpp a ko bokk pour julli yëpp pour doomu yu baax yëpp dañ fiy ñëw kon nag ne leen ñu xam ne ñun ñëpp a bokk boo laalee kii laal na kële boo laalee kële laal na ñun ne leen ñu góorgóorlu jàppaleen sa jubbaleen waaw ñaan nag ñu ñëpp ñaanalante taxaw

ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك loolu la leen seen maam comme ça yàgg ko def jërëjëf waay alhamdulilah papa yi lay tam yàlla la fi yàlla yàggal ànd ak wér ak dal jiite ñoo lu yàgg yàgg yàgg fekk ñu ngi gis doomi Cheikh Omar Faye rek seen xel di dal alhamdulilah su loolu passé suma xel dafa fat suñ mag ju baax ju sell ku baax ku bëgg imaamu Muntaqaa bëgg njabooti Cheikh Omar Faye muy aji fàtte Faye li may tudd da koo fàtte woon waaye moom itam dinañ ko ñaanal yàlla waaye ñun ñun du ñun rek dañu am ay dëkkandoor am ay mbokk bu yàggul rek ci kër gii di la fi daanu réer Paa Diop réer yi ca jaman ama Belgium Modou Diop gaañu fii yàlla na fi em yàlla na fi em yàlla leen yàlla labal ci yërmande bi jaaye rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baaxoo nañ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 rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te tey itam xam ngeen nit bu mat waaye dinañ fàttaliku Alaaji Ousmane Portugal moom mi nga xam ne mooy woon borom kër yi Adja Fatma Jibril Adja Fatma Jibril di sëti Cheikh Omar Faye moom itam ñaanal yàlla yàlla dabal ko ci yërmandeem te yàlla xaaree ko àjjana alaaji Ousmane Ousmane barakallah eh? te tey itam borom kër yi aji Kolle Thiam muy alaaji Cheikhou Kana ji moom itam wax dëgg yàlla di suy xarit bu baax yàlla moom na ko ci jamono yële مغتم يلا في الله لما الجير بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم راجي صلى دابو مغتم يلا موم نكو دي جكري بنت جام بنت جام دي دومي يا مري فاي دي ست عمر فاي مغتم يلا موم نكو يلا الله لما الجير بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبلها طيب بالبنان وفي مستودعهم حيث يحصى الورق ثم هبت البلاد لا بشر انت ولا مرغة ولا علق بل نطفة تركب السبيل وقد الجمع نصرا واهله الغرق ورد نار الخليل مكتما تدور فيها ولا سيضطرب تلقى من صالب إلى رحم إذا مضى لهم بغى طبق حتى قطع بيتك المهيمن من خل عليها تحتها نطق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاعت بنورك المخ فنال بذاك طياه وفيه نور السبل والجاد نحترق اللهم إنا نسألك بجاه الممدوح عندك والمادح أن تعظم حظنا من ذلك النور والضياء وأن تهدينا إلى سبيل الرشاد أخلاقك وخلاق اللهم صل على سيدنا محمد وعند حسن النبي نسمي إذا كان في الخمس المؤذن أشهد وشق له من الصين جله والعرش محمود وهذا محمد تأتي به ناقة لما متجرا بالبر كالبدر جل ليلة ولم وفي عطاء في بردتي ما يعلم الله من لين ومن كرم إن رسول لزم السماء به محمد محمد من سيف الله مسلول وابيض استسقى الابواب وجهي بما رجت مائمة يا وابيض استسقى الغمام بوجهي بما رجت مائمة بالاوامر ينظر الا كل ال هاشم وهم عنده في نعمة وفاضل دام درون سارى بنبيهم واحكم بما شئت وما افعل به واحتكمي واصبر ياتي ما شئت من شرم وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن أمر رسول الله ليس له <clears throat> حد فيعرض طيب عنه لا تقم بفمي تنازل القدر آياته زمن أيسمو حين يهود عن دار السر مني لم ينتحنا بما كان قول حفظا علينا من طول الليل عيا الورى دوم على وليس يرى بالقرب والبعد به غير منطعم كالشمس التوارد العينين من بعد صغيرة وتغل من الأمل وكيف يضرب في الدنيا حقيقة قام النهام تذل عنه بالحلم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير طالق الله من ذا الذي ما ساقت ومن له الحسنى لقد محمد العاد الذي عليه بالغلط محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بل الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بل الحجر محمد بشر لا كالبشر بل كالياقوت بن الحجر اللهم صل على من تدعيته لبدء الايجاد براءة استهلال ومن خاتميته براءة المختم والكمال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أحلى انوارك ومعدن اسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وامام حضرتك وطريق شريعتك المتدلل بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان الخلق المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدامك وتبقى ببقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه فترضى بها عنا وعن والدنا وذرياتنا امن يا رب العالمين لي سادة من ايديهم اقدامهم فوق الجبال انما كل منهم طلع بحبهم عز وجاه فبجاهي وبعزهم طيب لنا عيش الحياه واختم لنا ما لنا رب سواه ان يكون ربيعي بمن بمن بالمنطق النور هو شاحن بين جوف متوج مكمل الرابعين